mbokk yi hélas ñaari yaa ngi noonu ci digg géew bi hélas mooy bëre demi bi jël na tànk ba jël na tànk ba lu koy def lu koy def da koy wër ndomba da koy yéen koy def wër na ko ndomba dina jeex wala du jeex daanu na abi signalé na. El Hadj Ndiaye daan na Adama Goudia El Hadj Ndiaye ak Adama gis nga jël fi nga xam ne mooy final la sabar. waaw tey nga bind luur. waaw loolu moo tax ma bëgg lu ma bëgg a lese. <laughs> dollar nga da ngay yéeg <laughs> waaw comme noonu rek yaa gën a xam. mais waaw bii mooy a na ma daan ko yoon. daan na daan na ko yoon daan naa ko benn yoon daan naa ko benn yoon. noonu moo jël final poids lourd bi tey mu looy wax gars nga war a daje xale boo xamante ne moo jëlul final poids léger bi nga jël final poids lourd bi. Ah, rek. dañoo ñoom pour wut si rek waaw. Doudou Sané Elhadj Ndiaye mbokk yi ñoo ngi fii ci Ndangane Samb final poids lourd baa ngi noonu yan mooñ fi woo mise bi di un million cinq cent El Hadj Ndiaye daw na jël ko El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Hadj Ndiaye eh Doudou Sané El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Hadj Ndiaye Doudou Sané fàq na ko war na ko ndomba Oustaz Ndiaye Doudou Sané <laughs> nga Mbaye Babacar Doudou Sané war ndomb mooy fooram kenn moom wallaahi ku mu war ndomb nga Doudou Sané Doudou Sané Doudou Sané Elhadj Ndiaye ñoo ngi Samb final poids lourd la mu saf ko ca ko xam ñoom ñaa ñamante nañu léegi Doudou Sané El Hadj Ndiaye Doudou Sané El Hadj Ndiaye Doudou Sané ngi noonu ay waay bi final final baa ngi noonu Doudou Sané El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye démb moo ba Doudou Sané jël final poids lourd ba. ñoom ñaari ñu daje fii ci Ndangaan Samb di bëre final poids lourd. Lamb jaay noonu Mbaye Babacar. waaw waaw combat bu neex El Hadj Ndiaye nee naa nga dangay yéeg di wàcc mu ne ma waaw su neexee bindu lourd su neexee bindu lase. lamba demee noonu Mbaye Babacar. waaw waaw. waaye Doudou Sané ngi noonu. oh du jël na ko. koy bët. mais Doudou Sané est-ce xawul diis tuuti El Hadj daa diis ci El Hadj Ndiaye. El Hadj da ko doon mën mais Doudou Sané yëngatuwul benn yoon. wallaay. Doudou Sané El Hadj Ndiaye. Doudou Sané. ak El Hadj Ndiaye final poids lourd ci Ndangan Samb. ñooñu noonu mbokk yi fàq na ko. Doudou Sané fàq na ko waaye El Hadj Ndiaye daa bañ. Doudou Sané crochet na ko ca kaw. Doudou Sané El Hadj Ndiaye. bàyyante waat nañu. awla bàyyante waat nañu. ayca. round d'observation la ñuy def. ku ci nekk day déglu sa morom. ku ci nekk dangay ngay jàng sa morom El Hadj na ko léegi ndengeñ na ko ñoo ngi ndengeñante. Doudou téye na ci loxo bi. Doudou sànq nee na ma daan naa ko benn yoon El Hadj Ndiaye nee ma eh. daan naa ko benn yoon. moom El benn yoon. dafa mel ni xamante nañu ñoom ñaar. Lamb jaa ngi noonu El Hadj Ndiaye Doudou Sané. Doudou Sané El Hadj Ndiaye ci Ndangan Samb. final poids lourd. Ndeye Fatou Adama Jali way na fi lu neex. ambiance bi daw. amateur yi kontaan. waaw waaw. ñun reporter yi sax dañoo kontaan. ndax ndey Fatou Adama li muy way dafa neex. ci xol lay jóge moo tax suñu biir xol yi lay dugg may baaba. lu jóge ci xol ci xol lay delluwaat. Doudou Sané nga yëngu ñu naan ko yàggaayu. waaw waaw way yaa ko dugg. El Hadj Ndiaye Doudou Sané. ñu jàppante rek war naa mën a jeex. kii jël final poids léger bi kii jaa ngi noonu. loolu demb la woon ca Joal Fadiouth. ñu ñëw teew fii ci Ndangane Samb. mu mel ni tey dañoo ñëw ñoom ñaar tey dañoo ñëw confirmé. ah dina leer léegi léegi. mi-temps. Elhadj Ndiaye Doudou Sané Elhadj Ndiaye Doudou Sané final poids lu mbokk yi waaw waaw Elhadj Ndiaye démb moo jël final poids léger bi Doudou Sané moo jël final poids lourd ba tey ñoo tase fii ci Ndangaan Samb wax naa la ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa tey li nga defoon démb moom nga confirmer waat mbër boo bëree ba dem final sa jaan wàcc na dëgg la attention oh Doudou Sané Duusaan El Hadj Ndiaye El Hadj Ndiaye nga koy manœuvre Duusaan waaye dafa diis. waaw waaw. Duusaan fàq na ko léegi oo El Hadj jël na tànk ba léegi Duusaan doo ko tànk du ko doo tànk may baaw ka temps ba jeex na temps ba jeex na. Duusaan moom mu yee am ndam. Oh.